gars yi du tax ngay ñàkk ci gars yi. par question par question nga leen posé soog a développé. Hmm. da nga leen mujj di tette. ca fu ñu toll woon. Ah, ah, père euh, wax nga ko léegi euh, risque la ci Gris Bordeaux. Hmm. mais Gris mooy avantage am ci combat parce que ñu bari dañ ne. Hmm. ñu bari dañ ne. combat bi si la war a gën a mën a wane boppam ndax daa war a défendre li nga xam te ne moom mooy couleur face ak troisième tigre. couleur face palmarès redorer blason Gris palmarèsam dafa dafa dafa dafa dafa opaque tour la am ku yàlla may la ci làmb tëjul làmb waaye Gris Bordeaux mënoo tudd mbër te boole woo ko ci yàlla moo ko boole ci làmb Gris Bordeaux amul amul dix victoires successif mais di ko boole ci làmb ji. est baa ngi ci waaye tamit. liggéey na lu tax loolu mu am ko bien vrai que euh, euh, li ma wax moo ci ne euh, victoire bariwul boobu bari tey kaay ma wax la Gris Bordeaux bëri na bëri na roi des arènes bu fàttee c'est-à-dire day bëri ay combat de qualité moo tax combat ya bariwul lool mais ay combat qualité la bi muy bëri ak Yékini bu daanoon Yékini day na roi des arènes attention dem na ba sommet boobu bu fàtte daan na Bombardier qui fut roi des arènes kon Gris euh, combat yi muy bëre moo nekk qualité bëreeg Tyson combat qualité la bëreeg Amath seen deux fois combat qualité la bëreeg Baye Mandione ca ba ma Mandione en mille 2004 nga xam ne 2004 boo yi fii yëpp bu ñu duy woon ñemewuñ bëreeg ma Mandione ndax ni mu meloon mbir bëreeg mu bëri bu métti fii combat bi yàqu. mooy bi mu kiiwee bi mu blessé bàyyi ma ñoon te bàyyi ma ñoon ne du faju ji combat ba far fa yàqu ko ñuy wax euh, Massamba Seck moo ko tëggoon muy xaw ma lan consulting bu fi ñëwoon euh, làmb ji bëri woon ay promoteur yu mag ay ponkal kooku moo ko tëggoon en 2004 euh, signature bi sax ñu ngi ko defoon Sainte Marie bu ànd bu te diir pour te kon Gris Bordeaux combat bi combat la boo xam ne bii attention moom xam na li jóge ci moom pour delloo ko ci moom mën a affronter Balla Gaye ndax Balla Gaye ma woon mu bëre woon noonu ah dafa fekkoon mu muy muy muy càkki-càkki ñëw rek après nag ci la defaruwaat ñëw daan Modou Lo te kaay ma wax la garabu Gris Bordeaux garabu Gris Bordeaux hmm. euh, Balla Gaye garabam xam nga li ma wax hmm. hmm. yow dama la cax yow waaw loolu noo koy firee waaw kii mën Gris Bordeaux Balla Gaye ko man ok. mën Gris Bordeaux. Balla Gaye ko man Gris Bordeaux kan moo ko man maa ko man maa wax loolu maa ko wax te looloo am da ko weddi. Ah, yow say wax weddi. loolu mala amul. Ah, loolu am na mala amul. pe li ma wax am na ma laa amul. non koo ko mën. ma ne leppeteel ku ku mën Modou ku ko mën. Modou Lo kan moo ah. Balla Gaye. yéen loo tax ngeen ragal wax yooyu. ku mën Balla Gaye. Balla ko mën fuuf. ok. ku mën Gris Bordeaux. ku ko mën fuuf. ok ah, noonu la de. Balla Gaye. Euh, ku mën. Balla Gaye Eumeu ko mën fuuf. tane ji wasaagul. Ah. ku mën Eumeu Sène. ku ko mën fuuf. waaw. émission bi fii lay jeexee. mais Père xam lu eh. déggoo moo tax ma ne la 11 ans yi. bu ba ah. mën a dellusee ba ba fekk fi ñooñu. Ah. kon ñi fi nekkoon. Ah. liggéeyuñu lu tax ay génération ñëw génn fi ñooñu. mbër mu ndaw mooy génn mbër mu mag làmb diggante boobu ñii liggéeyuñ fi mbër mu génn ñooñu. Gaston dafa lijjanti ba génn ñoom Yékini ci làmb ji. génn Yékini ci làmb ji. Euh, Lac de ku génn Moustapha Gueye ci làmb ji. génération de Guiers ak euh, euh, Balla Gaye ñoo ko génne Moustapha Gueye. Mm-hmm. ku génn ku génn ci làmb ji. Balla non non Baboy sax moom Baboy sax. waaw waaw ñoom yaa ko daan ñoom ñoo ko daan. Mm-hmm. yaa ngi dégg kanati encore ci mag ji. Tyson. Tyson ku ko ci làmb ji. ak Gris loolu ñoom gas loolu ñoom gasoo ñoo ko liggéey promoteur mooy liggéey lu génne mbër mu mag indi mbër mu ndaw beesal loolu nag dix ans yi amul moo tax bi gasoo mën a toog onze ans dellu soir di fekk ñoom ball Gaye kon ñi fi nekkoon liggéeyuñu génération bu génn ñooñu c'est la vérité parce que diggante boobu booy ñaa waroon na mën a ak Ama Baldé waroon nañ mën a génne ponkal yi gaston bu ñëwoon ne normalement booy ñaa la fa waroon fekk ak Ama Baldé ak ay gos yu yéeg mais ay Sa bu mënee ñëw nag fekk fi ñoom Balla Gaye fekkaat fi Bombardier. yow yow yow yow yow yow Bombardier bi muy bëri juddoo. bi muy bëri juddoo goo. te mi xam nga xaw ma sa yaat. Mhm. mais moom 96 da ñëw ci làmb ji te yow war na mën a juddoo goo boo juddoo it xam na woo sa bopp. <laughs> te yaa ngi wax làmb. waaye xaw ma day bàyyi xaw ma du bàyyi mais mhm. dama ne yow reporter bi. bi muy bëree booba juddoo ko. Momadou Ndiaye fekk la juddu la la ñëw ci làmb te boobu yow xam naa ne boo juddoo it xàmmee sa bopp dañuy wax dëgg. kooku bu bu gasoo mën a dellu soit ba di ko tëgg kon diggante bi liggéey amu fii kon c'est la vérité kon gàcce ngaalaama Gaston mais tamit ñi fi nekk aussi gàcce ngaalaama ndax booy xool la du Abdou ci ñooñu am na ñu mu tëgg Assane Ndiaye kan la tëgg ci ñooñu tëgg na Lac Rose ci ñi ma la wax nii ponk yi nii la ci tëgg. gisaguma ko ci tëgg. Fallou Ndiaye kanati euh, encore. Fallou fi nekk ay Sam. kan tëgg nañ ñooñu. ñi fi nekk VIP yooyu ngeen wax ku leen fi tëgg ku dul Abdou Fall. moom rek moo leen fi tëgg. Mm-hmm. kon benn loxo fi ne. benn loxo nag mënul liggéey loolu yëpp ñoom Gaston bi ñu fi nekkee lu def fi ne am man Petit Mbay man moom mu man sëñ moodu Assane Ndiaye euh, euh, Aziz Ndiaye man Abdou Fall ñoo tax looloo taxoon loolu nag la amatul. guy gi rëg rëg. guy gi. rëg rëg. parce que père. lu ci lu ci ne. combat boobu ndax dañu gis ni rëg rëg. waaw déet wax ma combat boobu lan moo ci ne. waa GFM entertainment. waaw taxaw na mais ba léegi. dama ne ndax taxaw na. ah officiellement gisaguma combat. man du ma wax ci combat bu taxawul. ok wax ci combat bu taxawul. mais combat boobu noonu non waxuma ba xam dañ ci mais combat boobu nan nga ko gisee parce que dañuy gis ni Reug Reug. Hmm. pour wutal ko adversaire. Hmm. wax nañ fi Forza. Hmm. wax nañ fi Bombardier. Sa Thiès. ñu gis ni ba mu ñëwee yàggu mais dañ koo boole. ci ñi ni mooy mbëri nekk ci kaw. mais loolu nan nga ko gisee. waaw dafa liggéey lu mel noonu. avant mu ñëw dafa indiwaale te bi muy indi turam yi daf ci boole mën a bëri. ba pare nag bu defee ay preuve am ku xam ne rek rek jeexal na làmbu simple lu mu ci am defe naa ne bu dul yëkki ni gisuma mbër mu ko ci am xëy na ponkal ya woon ca gannaaw ci bëri simple bi bëri dóor bi it def na ci ay preuve bien vrai que nag da da da da jaygul ak ay kànding peut-être dajale nag ay luur yoo xam ne rek commune Gris 2 daan na ko ak yeneen mbër yu mu daan ak Elton daan leen. loolu preuve la ci ne war naa mën a bokk ci euh, dafa am mbër yoo xam ne yàlla moo leen bindee dañuy ñëw bokk Yékini bëriwul combat préliminaire Tyson bëriwul combat préliminaire Moustapha Gueye benn combat spécial la bëri euh, yàlla yàllaay def loolu dafa am ñoo xam dañuy ñëw jàll Bombardier benn combat la bëri euh, Mbour ñëw fii bëri ak Alaaji Ngeer defe naa de bëri grand combat làmbaa leen soxla mbër mu làmba soxla la mbër bu la làmba soxla da sa dox day gaaw moo dal moo dal euh, kii Reug Reug jafewul wutal combat plan de carrière lañ ko tracé parce que dafa am combat yoo xam ne moom moo koy nangoo bari su ko nanguwul du mën a taxaw Balla Gaye tollu na foofu Modou Lo toll na foofu moo tax Modou Ama bari wër wër loo bi yàggoon bu doon ci amaa Baldé taxaw na bu doon ci Ama Baldé rek taxaw na waaye gis nga euh, wër-wërloo gi yëpp mooy dafa am mbër yoo xam ne euh, dañuy toll foo xam ne ñoom combat ñoom lay neex. ok rek rek nag foofu la toll. mais moo guy gi bu yàlla defee mu taxaw ndax ba fii ñuy wax ak yow muy samdi bii tey la ñaata fan. tey la. tey la huit. li tax ma koy préciser. pour ñu bañ a defee ne damay xajamal làmbi jàmbur. ba tey jii may wax ak yow fii ñu toog sambi huit taxawagul amaguma ci lu leer waaye komba bu jaadu la waaye nag ci guy gi la waroon dépendre malheureusement li ko yéexal laa leen di wax ñoom bunt ba ñu waroon jaare jaaruñu fa. dangay jël guy gi téye. guy gi lañ moom ngay démarché ba téye ko ba waxaaleeg moom ne ko diw laa lay wutal mu ne waaw diw laa lay wutal ba mu nangu. bu nangoo jël avance yooyu nga xam ne kon nangu na kooku nga dem jëli ko ne moo fi ne mënu koo bañ waaye boo demee jël regretté di wëri guy wëti guy gi guy gi li muy njëkk lijjanti mooy pexe lay wuti ba pare ah oui parce que carrière guy gi nag ci bëre door du carrière Reug Reug ce que guy gi a fait Reug defu ko fi attention tàkkusaani guy gi ci bëre door Reug Reug amagu ko fi te Reug Reug loolu la bëgg te ci guy gi la ko bëggee loolu mooy problème bi loolu mooy problème bi. Mm-hmm. waaw moo tax euh, ñoom bunt ba ñu dëggee moo tax mu yéex. Mm-hmm. mais c'est un combat boo xam ne euh, logique na ci guy gi logique na ci Reug Reug làmb la mm-hmm. euh, kii def na fi lu war a loolu kii palmarèsam mën na ko nangu mën na ko bañ mooy guy gi parce que def na fi loo xam ne Reug Reug defu ko ko fi attention turu turu turu turu guy gi moo njëkk a siiw turu Reug Reug ci làmb loolu na ngeen ko bàyyi xel moo tax du woon yomb nga téye ko naan ko rëg-rëg fi ne mais foog mu ignorer la tuuti foog mu jëm la daw dawloo tuuti foog mu wuti pexe yo tuuti ndax combat risque la ci moom. combat ci guy gi. rëg-rëg mu daanu ci guy gi yàqulu ko yoon waaye guy gi mu daanu ci rëg-rëg du gaaw jokk te it bàyyi leen xel lenn mooy première sortie guy gi après décès Mor Fadam dafa diis ci moom combat bu diis la ci guy gi. muy premièrement décès Mor Fadam euh, premier combat après décès Mor Fadam muy benn. deuxièmement mooy tëdd fil bi léegi. moo ba sa nekk tëdd fil bi. waaye daf ci boole waale bëreel Mor Fadam. dafa diis dafa diis. te kaay ma wax la euh, combat bi euh, attention maa ngi leen di ñaanal yàlla encadrement bi gën a taxaw. mais combat bi foog ñu def ci ñoom lu ñu mag lu ñu manul parce que guy gi daanu mën naa tas écurie bi. ah oui. mën naa tase cru bi ah combat bii du du du combat rek combat bu survi école bi la aussi attention li may wax xam naa ko <laughs> bon kon du ko gaawoon jël noonu mhm. waaye comme yàlla def na ñu ngi négocier nag ba léegi jël avance ci des mhm. ah nañu préparé wu xeta xam ne ki ñuy dajel mhm. mbërum penc la xale la bu naqaree daan dooleem fu mu nii rëg-rëg doole ji nii ëpp na nii ah oui athlète la et puis ba pare nag dépassé na làmb ma nga ca NMA ba kon xam nga te làmb nekk ci deretam mhm. setu bugguma kan setu moodu kan bu caaroy kuy sa papa papa kan di sama gibaay euh, ngay doomi caaroy mbër la mhm. guy gi mbër lay dajal mhm. waaw Tapha Tine Boy Niang combat ñu bari dañ na Tapha Tine ak hmm. moo gënoon logique. Tapha li logique moom bu dee logique rek la par logique. Hmm. Balla Gaye Tapha Tine la woon. bu dee revanche rek boo xam ne bii c'est historique. Ah. revanche boo xam ne remember la boo xam ne bii xale yu bari ci yéen fekk wuñ ko. Hmm. te coow la bari woon. Tapha Tine la woon ak Balla Gaye fii Balla Gaye toll nii. Ah. ak fii Tapha Tine toll nii. Ah. fii la revanche bi ñore woon mais yàlla dogalu ko. yàlla ko dogalul ah. waaye nag ku ñaa kuy wër Balla Gaye ba dajeeg Tapha Tine ah. da ciy yem ah. parce que kuy wëri Balla Gaye boo dajeeg Tapha Tine te Tapha Tine Balla Gaye daan ko kon loolooy jaaral comme nga ko mënoo ko wut jaar ci Tapha boo daanee Tapha Tine dootu la bañ mm-hmm. mais du risque ci Tapha parce que defoon na ko ci Ama Ama bokkul contexte yi ñoo bokkul lan fee dafa demoon ne moo leen man mais ñetti komba la woon pour moom da leen di taxañ rek am ci xaalis moom dafa ne woon xaalis a leen boole loolu la jàppoon <laughs> jëm jëli xaalisam la ko ca dal dal ko déception la bokkul ak combat bi bii xam ne ne mbër la dajal làmb la combat la combat à préparer la te gis na ne Boy ñaa bien vrai que Lac de Guiers daan na ko mais jël bi jëlli mbër la te gis na ne booy Niang capacité de mobilisation ci arène nationale bi may na ko oraa mu bëreek moom kon Tapha xam na li tax mu accepté combat boobu te it mënu ko woon bañ te booy Niang aussi warul woon sax traîner di xaar ñu koy moom moo waroon laaj Tapha parce que toll na foo xam ne yeew nag bu ma tee day dem géej yeew su ma tee day dugg géej ah day dugg géej ah, yeew la mat na dugg géej waaw waaw. Lac de Guiers kan mooy adversaire ndax ñu bari nee instant bi Balla Gaye am na combat. mën nañu wax ne bëri VIP yëpp am nañ combat. Lac de Guiers. bon Lac de Guiers dama ne li ma jàng ci moom mooy euh, xale yi nekk en nerve euh, bëggatul a bëri ak ñoom dafa bëgg a xaar gaa yi ci kaw dafa bëgg a xaar gars yi ci kaw xam nga xam nga mbër aussi plan de carrière am euh, koo xamul lu muy dundee. su la nee damay xaar bu ko ca yërëm xëy na moom géré na boppam ba xëy na nekku ci besoin yàkkamti combat te yàgg yàgg yàgg yàgg làmb ji dina ci ami place peut-être yoon bee yéex nii muy kii nii gars yi di épuisé wu muy ñëw attention dañ ko bàyyi xel man am na waxtaan nañu mais li ma jàng ci xelam mooy mi ngi xaar gars yi tas mi ngi xaar gaa yi tas ah mu duggaat seen biir mais normalement mook Tapha ci li ma la wax ci bàll Gaye moo logique woon mook Tapha moo Gris Bordeaux suñu bëre combat la woon mais nag comme li ñu wax rek bu fi promoteur yi gënoon bëri euh, jaxasoo bi bëri combat yi yëpp kon doon na taxawi mais nag ni mu demee ni mu demee ci làmb ji waaw